jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaar yéen ñiy suivre seen site internet Gaston Production mbokki yi nag ñu amaan mbégte tey di leen baal àq di leen balu àq ci weeru koor gi ñu génn ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin comme ni ko yonent bi waxee rek awaluha rahma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu itqu mina naari macha allah ñett yooyu yëpp ñu génn ci muy première dix jours bi deuxième dix jours bi ba dernier dix jours bi ñu amaan mbégte di sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur bu baax di wax ne liñ ci ñaan lépp yàlla ñu ko suñu borom nangul barke Cheikh Aliou Diouf Lambaye barke Serigne Touba ñu leen di siyaar bu baax nag am mbégte ak contentement bu rëy tey nag ñu indi leen benn information boo xamante ni macha allah hmm, neex na lool ci monde làmb neex na lool ci grand contre petit waaye mbokk yi noonu lañ leen di nuyoo bu baax di nuyu sama mbokk bawol bawol yëpp ak sama mbokk saalum saalum yëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di nuyu waa dëkk waa Lambaay bawol waa Njeng waa Kër Abdou waa waa Ceeb ñu leen di siyaar bu baax waa Mbuso waa Mbadiane ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax parce que tamit nit ki amul lu dul fa mu bokk di leen baal àq bu baax di leen baluwaat àq di yeesalaat suñu njébal ci waa kër Serigne Aliou Diouf Lambaay di tàkkuwaat naan bu baax a baax a baax a baax baax a baax mbokk yi ñu am mbégte di nuyu waa réew mi yëpp ak waa bitim réew di leen siyaare ku ci mel ni liiru jaan doomu ndey moo njaay directeur moom États-Unis la Korité ñu ngi koy siyaare bu baax le grand monument di wax ne nuyu ñu moo njaay nuyu ñu madoo tamit ñu leen di siyaare bu baax di leen kontaane bu baax di leen jox seen wàcc waaye tamit boo ñëwee ci réew mi ku ci mel ni kanji production ñu ngi koy béggee bu baax di ko jox tamit ki ma ñëwal sama ñaw bi nga xam mooy Aliou borom Ramdan Hmm? nekk nit ku baax nekk téer boo xamante bi nii macha allah ku ñawalul rek baaxul Aliou borom Ramadan maa lay siyaare ku ci mel ne Abdou taal bu xarañ loolu ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax waaye tamit maa ngi dem ba Touba di nuyu sama nijaay sëñ Moustapha Ndiaye maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax Hmm, doomu Ndiaye Poti ñaa maa ngi lay béggee bu baax a baax ak békaay nijaay maa ngi lay siyaare di la ñaanal procès yëpp yàlla na suñu borom def barke def ci xewal bu baax a baax a baax waaye du ñuy sama xarit ba Fallou Fall Touba maa ngi leen di béggee bu baax a baax mbokk yi yaakaar naa ne foofu la ñuy taxaw rek xam naa ne duñ mën a ñuy ñëpp sax parce que comme ñun moom ñëpp ñuy seetaan ak groupe whatsapp yi ñu bokk yëpp moo xam muy ëttu làmb ji groupe Fallou Ndiaye bi groupe Assane Ndiaye bi groupe arène bi groupe yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar parce que yaakaar naa ne ñun formation groupe whatsapp la génnee ba tey ñu yor micro ñëw di wax te bari na si ñoo xamante bi ñoo ñuy seetaan sax ñoo ñu gën a xam làmb fuuf waaye tamit di nuyu sama booy ba Siteu 2 borom cabinet Cheikhou Tidiane maa ngi koy siyaare bu baax a baax moom sama xarit la man ak moom dañoo yàgg depuis 2019 ba tey ñi ngi ànd te dara ñaawut ba tey muy liggéey liggéey bu am solo lépp luy baax ci kër gi ak lépp luy neexal guddi moom Cité 2 di nga ci am satisfaction bu baax borom cabinet Cheikh Tidiane maa ngi lay siyaare bu baax a baax sama booy bi mbokk yi ñu ñëw si benn combat boo xam ne mën naa ne taxaw na en quatre-vingt-quinze pour cent combat bi nag ñaari promoteur dañ ci nekk te ñaari promoteur yëpp kenn ku nekk sa mébét mooy nga taxawal bile combat te loolu aussi tamit avancement wu làmb la waaye tamit di nuyu ki nga xamante bi mooy bës moom tamit muy suñu kilifa ci mbir mi wax dëgg yàlla di ko sant bu baax waaye ku ci mel ni Pape Malick chaque jour du ko fàtte parce que nit ki ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla suñu borom moo ma njëkk a yëkkati micro jox ma ne ma waxal ma fekk ko arène bi ma ne moom ñu ànd di liggéey liggéey bu rafet te yaakaar naa ne dama ñëw mu yaatal ma siisu ma jël micro jox ma ne ma liggéeyal xam naa ne man incha allah ci kanam tuuti dama la fiy bàyyi parce que tamit sama jot mayuma ko yow talent mi ngi ci yow yëkkati ko jox ma Pape Malick Diop. maa ngi ko siyaar baax di ko ñaanal balaa déwén si heure bi mu am jabar kot su laay Abdoulaye Faye borom États-Unis yéene ko bu baax a baax mbokk yi boo gisee ma ne la avancement wu làmb la mooy combat bii ma leen di bëgg a wax ñaari promoteur saa bu nekkee ci làmb rek jàppal ne làmb jooju day nekk làmb joo xamante bi nii neex na wala arrangement wu làmb la parce que làmb bu ci benn promoteur nekkee neexul bu ci ñaari promoteur nekkee neexut làmb balaa neex xëccoo am ci comme ni mu demee woon ci Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante bi nii mooy xale ba di Modou Lo nga xam ne promoteur sëñ moodu ñaa yàlla na ko suñu borom xare àjjana te yéex a ñu nekkoon na ci Ndeye Ndiaye Tyson nekkan ci keneen ak keneen nekkan ci. ba lig Nicolas ni mu ñëwee bu ma jum suñu papa Gaston nga tamit nekkoon na ci waaye mbokk yi tamit suñu papa jooju ñu koy ñaanal gudd fan ak wér yaram ci moom laa wara a njëkke moom suñu kilifa la suñu lépp la du sama kilifa man kese kilifa làmb la parce que yàgg na ci làmb am na lu mu def ci làmb papa ñi ngi lay ñaanal foofu nga nekk. di France yàlla suñu boroom defal la taw féex defal la gudd fan defal la wér gi yaram ba nga dellu si ci njaboot gi noonu koy ñaanale sa doom yëpp ku ci mel ni Mouhamed Mbeng suñu DG Alaaji Makan Mbeng ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla jël ngeen liggéey bi jox ñu ko te contrôlé wu leen ñu ci dara du ngeen laajte fan la ñuy dem du ngeen laajte ndax yéen a ngi xëy wala yéen a ngi gont ñun tamit comme da ngeen jël jébbal wax dëgg yàlla macha allah li liñ ci man mooy di ci daw comme Safa ak Marwa di ci liggéey liggéey bu am solo parce que nit ki bu la dénkee te contrôlé la rek sas na la yow li la war mooy chaque jour résultat nga teg ko ci table bi te boobu ba tey ñu ngi góor góorgóorlu mbokk yi di leen wax ne leen abona yi nag ah mi ngi commencé yéex de accompagner leen ñu incha allahu yi ñu dëgg dëgmal journée yi nga xamante bi ni moom la ñu dëgmal mbokk yi combat boobu. dama ciy dellusiwaat rek xam naa ne commentaire yi tamit ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziar xam naa ne ñi ngi naa waaye waxal combat bi waaye ñi leen di béggee bu baax nag yéen tamit parce que yéen ñuy accompagner ci liggéey bi di jënd seen connexion di ko partager ak ñun te connexion kenn ku ne xam na ne dafa cher Sénégal te da ngeen koy jënd mën a cons Modou Anta début à la fin ñu ngi leen di béggee bu baax a baax mboolem kuy commentaire ci Gaston Production moo xam bu positif nga nekk nit ku yaru nit ku discipline moo xam bu négatif nga xam ne noonu nga mel tamit yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar combat bi combat rëg-rëg la ak ki nga xam mooy b guddi guddi mbuur fi may njëkkee nag damay njëkkee si bombardier lu tax may njëkkee si bombardier day mbër boo xamante ne mbër bu jara félicité la xalil yow tamit di la jaajëfal bu baax parce que tamit liggéey bi depuis ba nga fa ñëwee ba tey yaa ngi yokk macha allah te doo découragé wu nekk booy bu cool maa lay siyaar bu baax di la ñaana balaa déwén ci heure bi nga génn ci célibataire gi nga ne hmm? macha allah maa ngi koy ñaanal li tax mbër la boo xam ne bu ma juumul 97 wala 98 ba tey mi ngi si làmb ji nekk roi des arènes ñaari yoon te loolu yombul ci làmb ci histoire làmb mosul am yaakaar naa bëre na ak ay magam bëre na ak ay moroomam mi ngi bëgg a ak ay rakkam parce que avant muy bëreeg tafaatin la ne Sa Thiès ak Reug Reug ku ci daan pare naa pour jox la loxo bëgg naa bëreeg Sa Thiès bëgg naa bëreeg Reug Reug ba pare yëkkati ne Franc yëkkati kàddu jëmale ci Franc ne nañ ko bàyyi xel champion la kon Bombardier nit ku baax la nit ku baax la bu ko neexan du maye sance bu ko neexan mën naa bëreeg tafaatin ba pare rek après mu bàyyi te man biir na ne ma dina bëreeg rek rek wala mu bëreeg Sa Thiès côté Sa Thiès moom ci Sa la des bu Sa Thiès nangu woon ba tey combat boobu taxaw na parce que Bombardier amul problème boobu li tax amul problème boobu nag amatul dara lu muy prouver ci làmb di wax ne làmb lii la boo ci nekkee nga am loo ci def Bombardier li mu def ci làmb pour mbër defaat ko Sénégal day jafe ñu wax ko te dee li ma rek roi des arènes ñaari yoon mbër mosu ko nekk te moom moo ko nekk te pour mbër nekkaat ko nag dina jafe te bi mu koy nekk moom dafa jafe parce que macha allah da koo jëlee ci moroomam Mohamed Ndao Tyson ba pare ñëw jël ko ci rakkam di Balla Gaye numéro 2 ba tey mu nekk ci biir làmb ji ba tey jii mu pare pour bëre ak rëg-rëg ñaari promoteur nekk ci di ko démarché kon bombar Bombardier dañ lay félicité bu baax grand li nga bëgg lépp yaa ko xam sa carrière nga terminé génn en grand grande porte loolu lañ lay ñaanal comme ni ngi ci duggee si bisimilahi rahmaani rahim nga génn ko ak alhamdulilahi rabil alamin parce que kenn ku nekk loolu lay ñaan servir nga waa mbuur lu nekk andil nga leen ndam lu dul ndamu jinne andil nga leen ko victoire bu dul victoire u jinne andil nga leen ko dem nga si combat ba taay waa Mbour gépp tiit nga ñaax jóge mbuur ba dakaar ñëw jëli ko yóbbuwaat ko Mbour grand ñi ngi lay béggee bu baax amaguñu chance toog interview nag mais incha allah xam naa ne dina yomb incha allahu rabbi heure bu ko yàlla dogalee ñu ngi lay félicité bu baax li tax ñu lay félicité nag mooy yaa ko def rek te ku ko def wax dëgg yàlla ku ko wax la bëgg beneen bi si topp nag rëg-rëg la ñuy wax parce que tamit lu tax rëg-rëg dinañ ko félicité moom day xale rëg-rëg yàggul ci làmb rëg-rëg 2012 2013 la ñëw si làmb loolu yàggul boobaak léegi ñaata combat la ci bëri 16 kombaa bu ma juumu wala 17 combat am ci benn défaite macha allah dañ koy féliciter te Reug Reug dafa porter drapeau réew mi représenter Sénégal fu nekk Reug Reug dem na de CEDEAO dem na drapeau chef de l'État mbapat yi bi muy mujj ci mbapat moo tëj caabi mbapat moo ko tëj ngomb li moo ko jël tëj ko yor caabi ji dem na ba kenn mënatu koo daan ci mbapat lu gars yi teg lu nekk dañuy laajte bu ne ko jël ñu ne diw ñu ne xanaa Reug Reug ñëwul bu ne mbapat am na tey ñu ne Reug Reug ñëwoon na ñu ne waaw ñu ne kon moo moo kan a dem final loolu yombul jàpp nit daan ko samedi daan ko dimanche ngeen dajawaat nga daanaat ko ngeen dajawaat dimanche nga daanaat ko loolu yombul mbër bépp boo daan konteel nga ko 5 ñii 6 ñii 7 ñii 9 ñii 10 loolu yombul mbër musu koo def ci mbappat kon mbër bu mënee ñëw ràññee loolu ci mbapat ba pare nekk booy bu ndaw nekk xale macha allah dañ lay féliciter ba pare nga teel a ñëw ci làmb lutte avec frappe wane fi say preuve parce que bu leen fàtte na Reug Reug yàggul ci lutte avec frappe mbër yi ngay gis fii yëpp ñoo ko fi jiitu tey fii mu nekk nii nii nii heure bi waru ko fee na fekk moom Omar Kane Reug Reug ñu ngi lay nuyu di nuyu sa copain di sama xarit tamit Cheikh bu Reug Reug maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam waaye Idi bu Sa Thiès it kooku sama xarit la maa ngi koy nuyu bu baax seen combat moom damaa mujj sax kii ci sama ñaari xar yooyu ak ma fit bu Sa Thiès ñoom Badara xam nga ñoom seeni tamit maa leen di siyaar ñoom Adama bu rëg rëg ñoom Esine boo yooyu yëpp maa leen di béggee bu baax a baax a baax ak magu rëg rëg bi doomu nday Sa maa ngi koy siyaar bu baax li tax ma wax loolu mooy que rëg rëg yàggul ci lutte avec frappe xam nga ku ñëw 2000 lan 2013 je pense 2012 xam nga loolu yàggul ak fii mu nekk si làmb te pourtant am na ñu ko jiitu ci làmb fuuf te yéeguñu fa damay bañ a tuddi tur rek mais bari nañu ko fi jiitu rëg-rëg ci ay moroomam moo mujjee ñëw gis nga fii mu nekk nii loo bii mu nekk fii mu bëre ba toll fi ñi fi toll xam nga génération ñoom ban année lañ ñooñu 2009 la ñii 2007 ñii 2008 ñii 2005 ñii 2000 2000 lan ñii 2000 ñii 2002 ñii 97. parce que fii mu nekk mooy euh, euh, parcour ñoom Sa ñoom booy ñaa ñoom Ama Baldé parce que foofu la nekk. même Sa mi ko daan tamit kooku waxaale ñu ko Sa moom moom beneen affaire la li tax ma ne la Sa Thiès beneen affaire la moom dafa yàgg galère ci làmb am ay combat jànq daan ko premier combat mën naa leen ko ba dernier combat kon moom tamit instant yi mi ngi ci VIP yi mais rëg-rëg noonu la nekkee ci VIP yi parce que bu la Bombardier nangoo may chance yaa ngi ci VIP bu doon Bombardier nangu laa may chance nag da ngay retourner jéem a xaar Forza ak Franc ku ci daan nga bëreek moom wala soit Modou Anta Alioune Seye 2 ku ci daan nga bëreek moom Moussa Ndoye yéen ñaar du ngeen bëri Garga Mbossé ñi ngi koy jaale yaayam jooju aussi tamit waaye bu dee Sa Thiès euh, euh, Bombardier nangu na laa may loxo kon macha allah dan lay classé ci VIP yi. parce que làmb ji loolu la soxla làmb léegi dañu sonn ci Balla Gaye Modou Lo trois fois Eumeu Sène Balla Gaye trois fois xam nga Lac de Guiers Eumeu Sène trois fois Gris Bordeaux Balla Gaye xam nga yooyu dañ ci sonn mais nag revanche yu neex lay doon parce que Balla Gaye Eumeu bi ñëpp xam nañ ne. Oh, oh. ci nduy bax la amu ko buy sedd la moom bu doon bëre yow ba quatre fois cinq fois mënoo ci dara day neex parce que moom loolu yàlla may na ko mais nag faaw ñu ubbil porte ñoom Franc ñoom forsa ñoom moo Modou Anta ñoom Alioune Seye 2 ñoom Guy gi nan dugg ci seen biir ñoom doomu dangu fis de la boo dee lim sax da ngay jum nañ ubbi foofu pour ñu mën a dugg ci biir VIP yi tas ñu am ay combat jànq mais nag mbokk yi promoteurs yi ci nekk dinaa leen wax ñaari promoteurs yooyu ci nekk. mësuñoo tam amaguñu chance su tëgg combat cinquante millions ñoo nekk ci bombardier ak ki nga xam mooy rëg-rëg xam naa ne yàggatul dara incha allah rabbi dinañ leen ko def ndewenal man amoon naa yaakaar ne bala ñoo wari sax combat bi dina taxaw mais nag macha allah am na ci ñaari promoteurs yoo xam ne ay xale lañ gëm nañ seen bopp te seeni journée day neex te ñoom ñaar ñëpp nag ma xool gars yi ba xam xam ngeen làmb tëgg nañ ci mois de décembre bii ñaari promoteurs yi nekk ci rëg-rëg ak jee tëgg nañ ci mois de décembre bi ñaari promoteurs yi nekk ci Bombardier ak Reug Reug ñoom ñaar ñëpp bokk nañ tëgg benn mbër ah bu ma waxee loolu gars nañ ko xam ne ñoom ñaar bokk na tëgg benn mbër jox ko komba mbër boobu nag mbër bu am coow la mbër bu ama am coow la fii mbër la xale la nag xale la amagul ay dix combat ay neuf combat sept combat yooyu lay toll ñaari promoteurs yëpp tëgg nañ ko kon ñaari promoteurs yooyu ñoo ci nekk ñaari promoteurs yi nag ci làmb ji ñu nekk nii nii nii ku tudd seen morom tudd leen ndax yàgguñoo ñëw mais def nañ ci làmb loo xam ne am nañ ay journée journée yoo xamante bi nii macha allah boo ñëwee stade bi day fees dell ñaari promoteur yooyu ñoo nekk ci combat bombardier ak rëg-rëg yaakaar naa ne nag loolu incha allah rabbi mbégte la ak contentement bu rëy ñuy ñaan mu taxaw ak jàmm ci barke Cheikhul Khadim yàlla mën na ko waaye mbokk yi ngi nuyu ñëpp nag di leen ziar di leen wax ne leen information bu ci diggante bi dinañ leen ko jox waaye lu lu wér te wóor mooy que combat Bombardier ak Reug Reug taxaw na à quatre-vingt-quinze pour cent ci benn promoteur bi deuxième promoteur bi mën naa ne taxawal na ko à quatre-vingt-dix pour cent ñu ngi leen di siyaare ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax di nuyu Babacar Moutlama maa ngi koy siyaare bu baax borom marché Petersen kooku suma waaye la maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di nuyu gars yi nekk ci diaspora bi yëpp. ñoom Mbaye Toldo ñu ngi leen di siyaare ñoom Serigne Dour xam nga Serigne Dour moom maa ngi koy béggee bu baax a baax moom tamit wax dëgg yàlla nit ku baax la bañ koy déggee parce que conseil sax conseil sax sarax la mais Sénégal nag léegi dafa neexut a nekk parce que boo waxee rek ñu ne nit dalay may xaalis lu caag na dalay may xaalis Serigne Dour dañuy déggante muy conseil ci làmb te dafa xam làmb man boo xamee làmb rek dama lay nangul maa ngi koy siyaar baax di Alaaji Saa Touba mu baax mi di ko jox wàcc waayam baax di ko balaax di ko balaax waaye ku ci mel ni Modou Baye Fall borom xel comme automobile koy siyaar tamit nekk nit ku baax di leen bëgg di leen jox seen wàccuwaay xaarimante sekk moom sama booy la maa ngi koy siyaar di ko jox wàccuwaayam baax xam naa ko solo nii mu ma jàppee du ko xaadim waaye nag ba tey encore une fois Ramdan Couture Aliou moo fi jaar di nit ku baax wax dëgg yàlla waaye kenn du sama xarit ba Abdou Tall bu xarañ loo xam nga ne lii wax dëgg yàlla ah jamaykee tey bu ñëwee dina xam ne ak amut de billaay ak amut macha allah waaye ah, tamit alaaji kanji bu baax mi doom dayu xaadim ànd a sekk borom social bi kenn du moom wax dëgg yàlla moom nañ ko bàyyi suñu borom daal nit ku man nitam la nit ku baax la nit ku tàlli nit ku tabe macha allah wax dëgg yàlla ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax a baax mbokk yi lii la woon di leen jox di daje waaye tamit maa ngi nuyu sama xarit ba petit production ndeysaan promoteur bi xew ci jamono doomu ndeyu PDC Omar Sow kenn du moom maa ngi koy béggee bu baax a baax wuli wuliwaat yow yaakaar naa am na lu ñu war a def de parce que ma jumul am nga journée ah sargal kan sa xarit ba damay fàtte tur ba waay damay fàtte sa xarit ba turam ba nu mu tuddati waay Pape Modou Fall directeur de emploi koo koy doomu nday wuli production yaakaar naa wuli daf ko tuddee drapeau le 7 le 7 mai bi incha allah ah. wulli day sargal Pape Modou Fall ñun ñëpp nañ ko waajal incha allah ñun mbooleem reporter yëpp man Modou Anta sans frontière maa ngi ci biir di leen jox di daje rek ba beneen yoon incha allah ci Gaston Production Khalil jërëjëf. bu sifflé dañuy jël lu ñu moom dem suñu. jël franc day pression ci man.